mbokk yi information am na Modou Lo dégg nañ ne dañoo sàcc ay dàllam ci entraînement est-ce que nekkul nekkoon kon Siteu dafa pare pour jàpp leen ci mystique le marabout de Modou Lo jël dàll yaa ka ko jël wax ja wér naam wérut mhm. ku ko ci laal combat du la fi fekk la ko ci laal combat bi du la ci fekk Siteu mi jëlee ay sëriñ ba Burkina ma ne Burkina ak fu mën a doon ci àdduna mhm. Sénégal gii la nu nekk Sénégal gii la nu nekk mhm. te ñaan yàlla. Sénégal fukk ko ci ëpp man gisuma ko man Serigne Cissé mu sëñ Babacar. li ma la mën a xamal nag ak li Sénégalais yi di xew. Uh-huh. mooy ne lii nga may wax naan ay sàcc dal di Modou Lo yëg ku ci sàcc bagaasam wala nga jéem cee def naka sudu noonu. waat naa ci yàlla ne doo ko ne. dafa ci am ni ñoo xam ne dañoo amul jom. Uh-huh. ñàkk nañu jom ñàkk nañu personnalité. bu nu amoon jom yëfi Modou. dañ ci génn ba set ci wecc mm. waaye gis nga combat bii. moo xam danga bëgg a war moo xam loo ci bëgg a def waaye kerek boo ci duggee doo ko nettali ak loo ci mën a def nag doo ko nettali ndax komba bii komba la boo xam ne jaral nanu lu baree baree baree bari yeneen ci des nag ay daana yooyu duñ ci dugg waaye daal jaral nanu lu bari te ñoo ngi ñaanal Moodu nañ doon àndee ak moom ca booy ñaa ba mu déparé ba léegi ànd ko ca Ama Balde li li seen li leen xañ jàmm nag mooy ruwaa bi Moodu yor waaye ñoom ñëpp la leen waxoon barki démb laa leen di waxaat amul ñii amul ñaa nanu génn ci si yii nanu génn ci combat bi ñoom ñëpp nag xam naa leen te wallaahi xas wa rëbbul kaaba ku ci moytuwut danaa la wax lu bon. yaa ngi may dégg ku ma ci moytuwut danaa la wax lu bon. Uh-huh. lan mooy ay nekk nit ki am combat ñu nekk di ko perturber di wax seen wax yu bon yi hmm. pour lan li ma wax Moodu dana ko ne wax naa ko ne ko concentré wul ci sa bopp rek hmm. li ci war ñun danañ ko digaaleeg ñoom. wàllu saayir si. sama yoon newu ci waaye mbiru baatin bi moom. Hmm. bàyyee nu ko rek danañ ci jëflanteeg ñoom ba sàmba da ci dem ñëw naa sëñ Cissé kuy daan nga ne ma kii daan xam naa ko tam maa ko mën a leeral ci seetu loxo bi sëñ Cissé ki foto loxoom envoyé la ko loo koy wax. dégg ki am problème problème yi nag xaw xamul nu mu demee mu bëgg xam problème yi ni mu demee dafay foto loxo droitam bii bu dee biiram day métti wala mu am problème mu wërsëg wala mu am problème mu maanaam yaram wi xaw a doy waar day foto loxo duraatam bii bu foto loxo droitam bii mu daal di ma ko yónnee lu nekk ci yaramam wi dinaa ko ko wax. bu ñu ko liggéeyee dinaa ko ko wax bu ko rab jàppee dinaa ko ko wax bu ko nit euh, seytaane duggee dinaa ko ko wax xatta ba ci wër wërsëg wi sax bu tëjoo te xamul li ko tëj na foto loxo droitam bi yónnee ma ko sa allah bu ma ko yónnee dinaa ko ko wax waaye dama gis ay saay-saay yu bon yoo xam ne moo doo leen xeeñ jàmm te ci réew mi lañ ne. maa wax ak yow. allah akbar noonu privé. ay noon lañ yoo xam ne du wuñ ndax privé luñ xamul la ala dégg. kon noonu public la. noonu public la ndax ñu ci terrain bi da wane naan bëgg nañ moo dañuy fenn. allah akbar bëgguñu ko. allah man nag am saalum saalum laa kenn du ma fontoo. lan mooy nit ki nekk ci ko mbaam nga nekk di ko perturber. Hmm. nee naa ko concentré wul nekk ci li nga say entraînement. Hmm. baax na. bataay biñ nekk ak nag dañ ko ñàkkanteeg ñoom. Hmm. bala 24 ak jàmm incha allah ñoo ngi ñaan yàlla yàlla may nu ndam waaye képp ku bëgg a am jafe-jafe ci sa yaram fotol sa loxo bi yónnee ma ko. suñ si see wërsëg faa ngi dugg te ki bëgg xaalis bu bëree bëree bëree bëgg. yaa ngi dégg. am na ñoo xam ne ñu ngi toog di ma seetaan problème mu am xaalis la ñu am waaye yow mi nga xam ne da nga bëgg xaalis am problème manoo fexe ba am xaalis da ngay fexe yow mooma nga fexe woo ma incha allah boo ma wooyee maa ngi xeetu sangat yoo xam ne ku ko sangatoo mhm. yàlla ubbi la muy xeetu mbindum alquran maa ngi xeetu sunguf yoo xam ne ku ko ku ko sangoo yàlla dana la ubbi incha allah bu soobee yàlla waaye ba tey nag yaa ngi may laaj mbirum sangat waaye sama xol bi moo neexul li tax sama xol neexul dama gis ay kuti yu tekkiwu dara taxaw ne làmb ji danañ ci dugal seen loxo ah. ne dañuy xeex ak Modou Lo pour lan lañ bañ a lu leen def. lan laleen moodu def ku ma ci moytuwul danaa la liggéey ñu jiñ la sàcc tëj la ci kaso gi. ku ci moytuwul Modou. waaw doomi xay yoo xam ne tekkiwuñ dara bañ doomi jàmbur ji bañ koo bañ goo xam ne te Modou deful leen dara te Modou as gor la ab jullit la a nekk ci réew mi da daan doole cër bi am yàlla def ko ko. ku ko ci baxut dara jëy Moustapha dinaa la sànni loo xam ne danga dootoo tal Modou danga tal sa bopp. dinaa la sànni loo xam ne barki Moustapha da nga tal sa bopp te doodoo tal Moodu ba combat bi dootoo ci waxati nanu bàyyi doomi jàmbur ji uh-huh. waaye yow mi nga xam ne danga toog di seetaan ba léegi uh-huh. am problème mu wërsëg lu ne dugg nga ci lu ne saraxe nga ko uh-huh. lu ne def nga ko dañu lay seetal wax la sa wërsëg li ko tëj wax la li nga xam ne boo ko defee am xaalis muy ay sarax yoo xam ne boo ko génnee am xaalis yow mi bëgg xaalis nag Serigne Cissé ne yàlla bind ci alquran ne wama min daabatin fii ardi ila halalaay risqoha waaye inna haasa la rizquna maaluhum min nafaadin sëriñ ci si mu sëriñ Babacar ne yow mi am problème mu wërsëg ci bi bii laay jaar boole laa xaalis te dootoo tàggoo xaalis ba faw foo mën a nekk da am xaalis moo xam nit ñi de bëgg danga am xaalis nit ñi de mer da am xaalis mu neex leen mu naqari leen li ma lay wax nag du samay wax téeréb yàlla bi si laa ko pour jox la xaalis sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñu waxtaanee nopp ki bëgg jëkkër ji jox ko bopp ne ko yow rek la duma sax takk ñaareel. wala ki am jabar euh, bëgg moom euh, mu bëgg ko wala ki nga xamante ni daa bëgg maanaam ki mu bëgg mu bëgg ko moom rek mu bëgg ko. Hmm. sëñ Cissé Aliou nga jëli woon di te nopp laay bëgg waxtaanee ak yow. alawa ji. lii bunta musallas la. Hmm. buntu musalas nag bu fekkee ne da nga bëgg a jàpp jigéen uh-huh. wala nga bëgg a jàpp góor uh-huh. da ngay jaar ci bunta musalas wala nga jan bunta musalas nag boo koy kii bu dee da nga bëgg a jàpp nit ki da ngay nekk ba ba bunt maanaam ba jant bi di fenk uh-huh. bu jant bi di fenk mooy bu bët seet jotee jant bi di fenk nga toog bu dee dafa am ñaar bëgg a boole bu fekkee ne nag dafa ñuul da ngay nekk ba jant bi di dugg bu dee dafa xeereeral da ngay nekk ba jant bi di jant bi di fenk dafa am jant bi di dugg am bu dee ki xeereeral nag moom la ñuy nekk bu jant bi bi di génn nga mën a téye téye raw xaanam ci xaatimu musallas musallas nag boo ko amee lan la ñuy darbu dañuy darbu fa bu hital lësi kafara fa bu hital buñ ko tas buñ ko buñ ko darboo fa la ñuy mën a sukkandiku defal la ca noob goo xam ne koo bëgg mu noob topp la dana la topp mu nekk ko mu naqari ko bu dee la jabar la déggalul la buñ ko daggalee lu la bëgg bu dee ku góor ki la buñ ko daggalee jigéen ki dana ko topp force mu nekk ko mu ko ci alwa ji la ñuy sukkandiku dagg xaatim googu bu dee ku ñuul suul la dañ koy liggéey ci waxtu yi xam ne jant baa ngi dugg bu dee ku ku la dañ koy noobal ci euh, euh, wi nga xam ne jant baa ngi génn fa tabaarakallaahu buñ ko ko defalee yàlla dana ko defal sutura boobu diggante incha allah si tey fa ñu waxtaanee kaaraange kaaraange nag moom lu am solo la saay saay see tax ñu bon ñi wéyu yi band yi boo amul kaaraange ñu saraxale ci réew mi toogee nële nit da ngay aar sa bopp ba nga xam ne ku la bëgg a yàqal na yàqu ku la bëgg xeex na yàqu ku la bañ dee fa la jamono ji toll ndax nit ñi foo nañ te duñu wax dëgg kon boo nekkee ci àdduna fexeel di ar sa bopp law anzalna sa qur'aan ala jabalin la ra'aytum xaasian ba ila axiri fa tabarakallahu wala ay tabat yoo xam ne fa tabarakallahu alam tara yu saf saf ñu liggéey la ci ay xeetu kaaraange yoo xam ne ndax euh, fa tabarakallahu alam tara danañ ci liggéey xeetu kaaraange yoo xam ne kenn mosu koo gis tabat danañ ci liggéey xeetu kaaraange yoo xam ne kenn mosu koo gis woon fa tabarakallahu yow mi nga xam ne danga nga am problème jaaxle ci sa bopp bëgg fee ne ngir nit ñu bon ñi li ma la wax nii rek ngay def uh-huh. fexeel yow xam ma boo ma xamee dinaa la liggéeyal xeetu kaaraange yoo xam ne ku la bëgg a xeex dana génn dëkk bi mm. insha allah bu soobee yàlla ma dugal la ci papier këyit visa ki bëgg tukki ki bëgg séjour green card ki nga xam ne dafa bëgg këyit toog di ma seetaan nit am problème mu këyit sëriñ si mu sëriñ Babacar bu fekkee ne wax ji doy na la woo ma boo ma wooyee dina la teg ci yoon woo xam ne insha allah boo ko toppee danga am këyit teg ci yoon woo nag boo ko déggee mooy ne yow mi bëgg këyit foo mën a nekk ci àdduna dangay ngay sa loxo bi yónnee ma ko ma xoolal la bu ma la xoolelee dinaa la wax ban sarax ngay génne mm-hmm. sarax boobu boo ko génnee yàlla may la këyit këyit mbiri jinne la kon boo koy wuti dafa am noo war a mel am loo war a sol am loo war a saraxe boo demee taxaw ñu jox la këyit yow mi ko bëgg nag am problème mu këyit da ngay fexe xam ma nga woo ma ma seetal la bu ma la seetalee hmm. digal la sarax yoo xam ne boo ko génnee yàlla defal la jàmm maa ngi ñaan ca dara ju yonent mu Modou Lo yàlla na am ndam. surtout ak musique bi tax du ma ci jóg. dafa am ñu bon ñu nekk ci réew mi bokk ci làmb ji te ay saay-saay lañu. ay saay saay la man mistigul si te gisuma ko man Modou laa yaa ngi dégg man li booy Sonko yi doon naa focus leen ci Sonko. man ci Modou laay focus ndax Modou ma yëg ma yëg ko. aw ma joti défendre kenn waaye ku ma ci yëg boole ma ca sa bopp doyloo ma di ma wax may yëg loo nekk danaa ca nekk. Modou nag danaa ànd ak moom di ko ñaanal yàlla ba yàlla may ko ndam maa ngi koy ñaan yàlla. Mhm. koo mën a ànd ak Serigne Cissé moom yàlla laa ànd ak te maa ngi ñaan yàlla bokk yëpp dugal naa leen ci combat bi nanoonu ñaan combat bu su mos a am biyee ci gën a métti xam nga lu tax ba gën a métti dafa am noonu yu nekk ci tefes gi ñoo xam ne bu ñu sañoon tey tey jii muudu daanu noonu yu taxaw ci tefes gi te nekkuñ ay nappkat duuñ ay nappkat waaye moodu leen bëgg a napp moodu lañ bëgg a napp kon loola deesu ko seetaan moo tax nag sëriñ bu ci ragal doo doo ñemee génn ci làmb ji bu làmb ji jàlle na nga bëgg a sonal nit ñi waaw xam nga jaaxal dafa bëri ay ñoo xam dañ doon mbubboo euh, ñu naan leen sëriñ ay moodu lañ mais combat bi gisuma ñu saf ci lan moo xew ragal ak tàppet yow ragal ak tàppet doo nga leen jàpp ragal ak tàppet nit bu fekkee ne ji na la ngor ji la tiranga même buy dee ci xare yi ànd la moom dee ci xare ba mais am na ñoo xamante ni sëriñ am na ñoo xam duñu ànd ak kuy daanu non non kuy ànd ak lan ànd kuy daanooy lan. amul lamb ji ko ci Messi. ànd ak moom jékku ci Messi ku ko jékku. Ah, dañoo dégg loolu. waaye yow ma ne ku ko wax day duul. si si ku ko wax day duul. Modou loo nga ne jékkuñ ko ci Messi. ku ko ci jékku day duul. Eh. maa ko wax. ku ko wax. mais pas yi surtout jëlee Burkina la. waaye lan Burkina ak Fouta ak Mali ñeem ñëpp samay xar la waaye ku la ne bu buñ ma yëngal de. Mali du sikk sax xam-xami jàmbur. waaw Mali Fouta nangam ku la ko wax day fen. ah jekku nañ ko jekkuwuñ ko dara lañ ko jekkuwut. lay wax maa ngi topp làmb ji di ko xool. maa ngi ko topp. parce que yéen dafa mel na da ngeen a xewoon Siteu ñu dem ba ci biir Siteu njëkkantu def ay débat débam ba jekku combat bi. xeebeel mot dafa am ay seytaane yu ci newoon rek naan combat bi dañ ko xéloo ak yu kenn xamul. te combat nu muy gën a jegee tension bi di gën a am. te sa waay maa ngi lay wax ne làmb ji jegeeguñ ko sax. xam nga làmb ji kañ la. buñ ne bisu bu delsee la. Hmm. Mm-hmm. buñ ne bisu tey bu delsee naan semaine des ci làmb ji foofu la làmb di commencé si mm-hmm. suuf si nag buñ ne des na ñetti fan làmb ji di gën a jege mm-hmm. ba buñ ne suba la làmb ji ba la ñuy commencé làmb fi mu tollu coow lee fi nekk rek mbër muñ ne la jekku nañ ko dañuy duwul wax ji leer na leer na wasalaamaaleykum si duñ ci coftal sunguf suuru gisaa ngay suuru ba ba léegi lu xew cuuraay yi lan la. non non man man émission bi sax dama ko bëggoon a waxtaan rek ci Modou rek xañ na nit ñi ma xamee xam-xam di ko yaakaar ci man waaye ci Modou rek laa ko bëggoon def ndax ay naafiq yu ne ci réew mi ma xam leen jot seen i message ak seen i yi yiñ taxaw pour dëgg pour gasal ñu ndëgg sa rek loolu du fi am. am na si sëriñ ñoom de après combat la ñuy ñëw naan xamoon naa ko. xamoon naa ko yow da ngay yow da ngay teel a génn def déclaration. man ki may ànd ak damay ànd moo affiché wu ne kii laa ànd ak te ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla ànd ak moom ba yàlla dimbali ko bu Modou di épon presse maak moom la buy dem ca làmb ja maak moom la fenn daal laa dul bokk ak moom ci biir géew bi moog Siteu la waaye buy waaj danaa fa ànd ak moom buy épon presse dinaa fa ànd moom lépp lu muy def dinaa ko ànd moom ndax lan la moo ma doyloo boole ma ci boppam fa tabarakallahu kon dina ànd ak moom di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci dara ju yonent bi dégg nga sëñ Cissé la ñu fekk tey di la marabout de Modou ah, euh, muy borom xam-xam di ko xamante ni euh, li ko Modou Lo jaral euh, barki Demba Ndiaye bi ko Modou Lo seetsee dégg ngeen kàddu yu Modou Lo yëkkati fii ci këram gi wax ko ci jëmmam ji jàpp naa ne kon làmb ji kon <laughs> nee na ci sëmbax leeral na tamit. lu tax ñu bon laa xamul. Hmm. lu tax ñu bon. yow bokk ci làmb ji nit ki yàlla def ko waa nga ne ah ngay ne di wax say waxi caaxaan waaye yàlla na la yàlla tegloo ko du talee rek yow. yow mu may wax xam nga sa bopp man xam nga yow xam naa. yàlla na la yàlla teg loolu tale muur yow doomi xaraam ji. si si li ngay wax est du gaar waale lu tudd moom xam na. Ah, ok moom. moom xam na man xam naa. xam nga barki démb dama toog fii. ne kenn mënu maa gerte xaalis milliard ak i kër. man Moodu laay ànd ak ndax man xaalis mënu ma jënd. man dama reg démb tey soog a ñëw ku ci am say juróomi dërëm toog ci. waaye lan mooy gis nit bañ ko. Hmm. te deful la waxul la. est-ce que moo kon.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 yàlla ngeen bëri jàmm ci daraja yi Muhammad Rasulullah